وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وخائدنا إلى الجنة محمد المكين وعلى آله وأصحابه الضبر الوان والتمكين di yeesal sunu pas-pas ak sunu jaayante ci sunu yaakaar yi téye xalëb al abdul xadim muhammad ibnu muhammad ibnu abdullahi mbakki cheikhuna ahmadou bamba borom tuuba di ñaan ki teew ak jataayam te mat ko sëkk te murit bu ne yéene ko ko mu liggéey ko ba Sëriñ Tuubaa tànnal ko boppam muy jëwriñu Cheikhul Khadim di jëwriñu Cheikh Mouhamadul Bachir di jëwriñu Soxna Jaara fadilatu Cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na ko fi yàlla yàggal mbàkk amiin amiin amiin ba mbooleem naal yi nga xam ne am na ko ci tollu lislaam mu mot li ko te ànd ko ak jullit yépp barakatu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu nu mu Cheikh Mouhamadou Mountakha sama nijaay Pape yóbbaale na mboolem uxutul islam mboolem turuq suufiyee nga xam ne ci suba ba léegi seenu njaboot ñu ngi fi ñëw benn par benn di saafonte ak njabootu Serigne Mor Fall. Mm-hmm. yàlla yàlla fay leen. amiin amiin amiin. di siyaare bu baax mboolem njabootu dar manko gi fi teew ñëpp waaye nuyoo bi ñu jógee ci xalisu di murit maa ngi ko tekki loxol. sëñ Cheikh Lappé. doomam ju baax ji sëriñ Cheikh Lappé moom soxna Fatou Kine moom Cheikh Mouhamadou Bachir Fatou Madou maam xam si njëriñ njëriñ amul mu soo yàq di wax Cheikh Moustapha mu soo wàññi taranga mu soo ko yàqal dana yàlla na yàlla bàyyi moom ba nga tax njëriñ ba ñu xëyee ba léegi njabootu islam gépp ñëw bu ngeen gisee ma Serigne Cheikh Lappé dafa teew jotaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha te ndaw lu ne Alaaji Paap bu ko yebal wàcc waayam lay teg gi nag sama waay ki ma wërale àdduna ki ma xamale jamono ki ma ma xam ëttu borom kër gii ci doon Cheikh ma Mountakha say ba doon ko l'ambassadeur de l'islam l'avocat des immigrés mhm. Serigne Mamour ibnu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi xam ne moo yilif kër gi nam ko daan defe la ko defe ñëwul fi boppam ànd ak délégation bu am solo yëkkati fi kàddu yi am solo te xam ne bu fi ñëwee bokk na lu fi waay def moom nga ko defal sëriñ Mamour yàlla na ko fi yàlla yàgg tamit ku wér ko yàlla nga te am la Cheikh Mouhamadoul Moutada tegoon ci loxoy góor yàlla gii toog yàlla ko boppam ñu tëddee ko sëriñ Mamour da koo fedd li ma ca fekkee bëri fekke naa sëñ Mamour ak Cheikh Moutada États-Unis d'Amérique ma fekkee Serigne Mame Mor ak Cheikh Mouhamadoul Mourtada Ahmed Europe gépp du ma ne Italie ma fekk ko Serigne Mourtada Ahmed ak Serigne Mame Mor dans toute l'Afrique yàlla na la yàlla bàyyi ak moom. amiin. di siyaare xalifa délégation Cheikh Ahmadoul Mokhtar mi jëm Cheikh Mouhamadoul Moustapha al Karim sa xarit sa Serigne sa waxandoo Serigne Abdourahmane moom Serigne Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma ngir di def délégation bu mag. sa mbokk sa xarit sa sëriñ sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamed yebal na fi rakkam sëriñ Fallou Mbacke njëppatul islam gépp ñëw ñu fi gàdd yal nag ba fi njabootu sëriñ tubaa ñëwee waat sa dellu na ca daalan ñëw nañu funu miin ndax ku njabootu lislaam taxaw na fi di siyaare bu baax nag dar man ko yëpp maa ngi nuyoo léegi ak njabootu sëriñ Aliou Amar ci jéemul gënu jëm insha allahu rabbi le 2 février ñoom ñëpp ñëw nañ maa ngi ziyaara njëbal sëriñ ibnu nuyoo naan léegi ak sëriñ bayti ci turu sëriñ xaadim sëriñ Moutala nga nee toog sëriñ Cheikh Amar nga nee toog waa kër sëriñ Modou Amar kon lu sëtu gi sëñ Ndongo Joor sëñ Maam Ma Joor ak sëñ ñëw sëriñ Moutala woote nga waaye gis nga sëñ Ba sëriñ xaadim nga nee toog sëriñ gumba meññi ko benn bët dong la am yoo rek la koy xool fa mu tegoon way jërëm wa foofu rek la la teg sëriñ xaadim yaa gore amar yàlla yàlla guddal sa fan yàgg say rak sëriñ ahmadou nga lay moom sëriñ fàllilu toogal boppam toogal magam abdourahman ma ci états-unis d'Amérique ak lu sëriñ fàllu jabootee rakam yépp a ngi ñu toog boo ne waaw mu ne waaw boo ne weex na mu ne wax boo ne mu ne kukk yàlla na yàlla bàyyi sa wajur njabootu jigéen bi ñëpp a ngi ñu toog ahlu dar ko ñëpp ngi ñu toog wala fi dañuy wax ne nag ku guddee doo guddal alaaji Pape ma jox la nga introduire la délégation officielle dinaa ci ñëw je vais la présenter avant qu'elle ne prenne la parole le président de la République de tous les Sénégalais le gardien de la Constitution le premier des Sénégalais l'homme au grand chantier l'homme au grand projet de l'État le président Macky Sall yebal na fi délégation bu am solo comme toll naa ci naa ko lii rek incha allah bala may dem ci moom maa ngi nuyu papa sama sëriñ sama xarit son excellence l'ambassadeur itinérant sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Modou Fadi Khari moom sëriñ Massamba Issa Dieye moo xubi ko ma sambati ci bu dul fekk bi ma tànn président bi ñu ko liggéey dara yàlla guddal sa xam nga li la war xam nga sa bopp la délégation du président de la République de tous les Sénégalais, M. Macky Sall, est dirigé par M. Antoine Beng, ministre des Transports aériens, accompagné d'une très forte délégation. Maman Tchelim, M. Mamoudou Gueye, préfet, préfet, du département de Tuaouan, M. Ismaël Essi, sous-préfet adjoint, Niakhil, Mor Ndiaye, adjoint au maire de Ngandjouf, M. Mor Sow, maire de Mbaye, moom sama xarit la loolu ndeysaan ak maa mën a teral Roger Moustapha Diouf conseiller technique du ministre Bernard Thiomban conseiller technique du ministre Aline Badra membre du cabinet Modou Sow membre du cabinet Maguette Seck chargé de mission Serigne Modou Dem Omar Ndiaye Ousseynou Pouy Habib Niang Malick Diop Serigne Moustapha Ndiaye Serigne Ibrahima Sey Soxna Awa Diène Makhtar Mbeng Michel Mbeng Monsieur Pape Diop Mame Mbégué Xol ak l'ensemble des services des chefs de services régionaux le commandant le commandement de la gendarmerie également de la partie ñëpp nañu waa Croix-Rouge ñëpp ñëw nañu ah sëñ Moutala président ñoom nga ko def kàngam bu mu am rek ci Kajoor ñu ngi fekk fii te c'est la première fois jërëjëf monsieur le président nit pap sama pap mm-hmm. nit ñett rek la am ku ko xeebal yaa yaa loo ko moom yaa ko tooñ mm-hmm. bisam ab sëriñam ak soxlaam dara du ci moom nga présentel ma Thierno Ndiaye mu ubbi jotaay jërëjëf jërëjëf Cheikh Mbacké introduction bi jaar na yoon ñu dellu xanaa rek di delloo sant sëñ Muntaxa mi nga xam ni moo taxaw tey jataayub sëñ Touba yebal fi jarbaatam bu baax bi nga xam ni du ko yàqal dara di sëñ Cheikh Lappe Mbacké yal na taxaw sëñ Muntaxa taxawaay mun Muntaxa yàgg bu yàggee yal na ànd ak wér dañuy jox Thierno Ndiaye comme ni ñu ko daan defee at mu nekk mu ubbee jataay bi alxuraan ndax dëkk bi nu mu mel alxuraan koni ko melal dafa bokk ci dëkk yi nga xam ni alxuraan dafa dafay dund daara yaa ngi ci biir dëkk bi xale yi ngeen fi gis yëpp ñu jëpp wàcc nañu alxuraan kon Thierno Ndiaye bismillaahi rahmaani rahim بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آياته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رب ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحت تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين آمين يا رب أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم mbokk yi ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalu sëriñ bi kàdd yi nag ñu koy tàmbalee di leen nuyu nuyu lislaam <clears throat> muy juróomi baat yooyu ñu meññ ñu jullit yëpp muy asalaamu aleykum wa wa barakaatu may nuyu ci ndigalul sëriñ bi xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountada Mbacké di fam nuyoo bi di ko teg ci seen Cheikh Lapa Mbacké teewal pour mu jot lu leen ko di nuyu mbooleem kilifa diine yi fi teew yi teew ci baas bi ak yi fi ñu jaar ci suba ba léegi bari na ne su leen a lim moo tax ñu tënk ko lool di nuyu délégation officielle di fi teewal njiitu réew mi di leen tatagal di nuyu suñu bokki bopp yi mu bokki darmanko yi

ñoom ñoo waaw maa ngi doon nuyu suñu bokki bopp yi nga xam ni ñoo bokk dëkk bi ñu féete fi rek comme ni ko sëriñ bi waxe kon lim bi sax day aada rek waaye ñoom xam nañ ni ñoo bokk lépp ndox lépp loolu fi def ñoo ko bokk may nuyu kóllëre yi fi teew yëpp ci turu sëñ bi di nuyu waa dëkk bi di nuy taalibe yi di leen xamal ni kàddu yi du gudd ndax dafa guddi kàddu yi du jëm ci leen loolu fàttali li waral bis bi sëñ bi wax ne pour ñu fàttaliku ko la ca njëkk mooy sant yàlla moom mi nu boole ci diine lislaam di ko sant moom mi nga xam ni moo def ñu di taalibe ca nangu ko ndax mënoon na ma def leneen sëriñ bi nee kon cant moo jiitu ci bis bi ndax nit bu xëyee jant ba soox ba jant soox te dara mettiwu ko mu am jàmm loolu rekk jar na fanaane sant waxuma xéewal yi cay topp ku xëy am jàmm am wér yaram am loo suturluwoo kooku boo santul danga weddi kon bis bi cant ca jiitu ba ca topp mooy tudd yàlla alxuraan ji ci doon jàng lim bu bari la ëpp na juróom fukki kaamil ndax biig lañ ko tëjoon waaye tey am na lu ci dolliku kon loolu ak salaatu ala bii fi nit ñi def ak xasaa yi nga xam dañ ko fee def yépp loolu lépp ci buntu sirru lay tudd ñetteelu mooy sikra mooy fàttaliku mag ñu baax ñi nga xam ni ñoo sancoon dëkk yii te santoon ko ci diine diine rek taxoon ñu sant ba yëf yi ba yegg fii ak ña leen fa wutu woon ak ña leen fa wutu woon ba yegg si fii ñooñ tam ñu fàttaliku di leen ñaanal ndax ñaan day jariñ ku fi jóge ndax ñoom amatul lenn lu dul ñaan leen ñaan fii ñu fekk leen fa nekk wala liggéey buñ liggéey yoon nii di jariñu yooyu moo leen di jariñ moo tax ñaan bi tey ci ponk yi la bokk ñaanal ba tey nag ñiy dund ndax naan ñaan moom ñëpp ko soxla ku fi jóge soxla na ko waaye kuy dund soxla na ko ndax jàmm lépp ci ñaan la mën a jaare ba am ñaanal waa réew mi ñaanal réew mi ñaanal kilifa diine yi ñaanal kilifa aada yi ba ñoom ñëpp kenn ku ci na la yàlla warul sa kaw nga attan ko doxale ko na nga ko war a doxale kon yett yooyu moo taxoon bis bi ñu woote ko yaakaar naa ne nag ñett yëpp ñu ngi ci kon sëriñ bi nee na loolu moo taxoon ñuy woote bis bi mi ngi sant taalibe yi nga xam ni ñoom ñëpp ba bis bi jógeeg léegi kenn toogatul kenn solootul ña ci ñu ngi wër lépp loo xam ne mooy doxal bis bi bi bi ñëwee tam gis ngeen leen solowul taluñu dara ñu ngi ci lu dendeel gan yi man tam amal na leenu sant sëñ bi nee na mi ngi sant jigéen ñëpp ndax ñoom tam bu du woon ñoom dëgg yëf du mel nii mu mel kon daal ci gàtte sëñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dafa guddi liñ bëggoon wax lépp mootu ko ndax guddiwaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi jéggulu ci wax ji ndax baati neexul ki ñuy jottilil kàddoom it jottili ay kàddoom dina jafe lool ci ñun waaye ñu wax tuuti rek luñ ci mën ñu ngi wax ci turam mu jóge ci ndigalal Serigne Mourtada Amar cant rek lañuy def ndax guddi na te mënuñoo weesu def lu dul cant bu waxee taalibe yi nag bàyyiwul kenn bàyyiwul fii ñu nekk ci senegal te su waxee senegal bàyyiwul benn raison su waxee diaspora yi it bàyyiwul benn dëkk waaye mi ngi leen di xamal ni seenu liggéey day yegg si na yi te ñépp xam ko te cant nag mënta weesu cant sànq sëriñ bi mi nga wax ni taalibe yi day li ñu gën a bëgg mooy bëgg sëriñ bi moom moo gën sëriñ bi bëgg leen kon ñun li ñu war a def ñun taalibe yi mooy bëgg sëriñ bi te bañ sëriñ bi bëgguñu ndax bëgg sëriñ bi moom dafa gën lépp kon nee na ngi leen di xamal ni liggéey bi yëpp yegsi na daayire bi nekk Casamance jëm daayire yi nekk Touba fekk ci daayire bi nga xamante ni moom lañ fekk si fii ci gàdd Gadeyelle nga xamante ni bi ñëwee ba léegi ñëpp xam nañ ni lépp lu fi war ci taxawaay taxawaay taxaw nañ ko dara manqué yu fi kon sëriñ bi nee mi ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu boroom jàppal leen boppam di ñaan suñu boroom it ñu teewee ko ay at yu bëree bëree bëri bëri yu mel ni te rafetuñ fekkee ñun sëriñ bi day man nañoo ñaanal waaye ñu nit war nañ koo ñaanal suñu borom guddal fanam ba tey bii ko suñu borom jox suñu borom woyofal ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi fi muhkami tanzilihi ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan Cheikh Seydi Mouhamed Mourtada Amar amaddahu llahu umran ma'a sihhati mu jottali suñu luyoo ci ki nga xam ni moo fi teewal sunu wayjur Cheikh Seydi Mouhamad Muntaxa ak mbooleen njabootu man Cheikhul Khadim yi fi teew waxtul buyuuta min abwaabiha bu ñu ñëwee ci péncu gàdd Serigne Mourtada mooy suñu bunt ci lépp lu man ci doon kon mu jot lu ñu nuyoo bi Serigne Cheikh Mbacké ñu gën ko miin ci Serigne Cheikh Lappé Mbacké mu wuutu fi xalifa bi te di ko wuutu fu bari yàlla na yàgg sëñ Muntaxa ñu ngi lay Murtada ñu ngi lay ndokkeel bis bi yàlla na ko yàgg a taxawee mu mel ni ren mooy soixante-sixième édition yàlla na ko jiite waat soixante-six ans amin te yàlla boole ci amin na fan yu gudd lal ko ci barke tawil lana umrana sahih lana badana wa hab lana rushda wa tawfiqa yàlla yàlla na ko yàlla defal amiin wax ji du mën a gudd dañu ñëwoon di la ndokkeel waaye indi nuyoo Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général di Tijaan amiin indi sa nuyoo xarit sa mbokk Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo ak mboolem njaboot Seydi Al Hadj Malick ñebbe dugub ndab li boole leen ca tool ya lañu ànde ba leen yàlla di boole yàgg na lépp di rafet tabaarakallaahu ba sunu jonni yàlla yi tey yàlla jiital la ci kanam njaboot yàlla yàgg amiin amiin wax nañu sànq sant sëriñ xaadim bu sëriñ Gumba mhm. mais nii rek la kër gi mën a doxe sëñ Murtada la mën a doxe sëriñ Fadilu Amar yal na ko yàlla dolli leer fa mu tëdd amiin amiin dolli magam ju tedd ay leer ak yërmande fa mu tëdd sëriñ Gumba ak mbooleem njabootu maam Mor Xaruma nii la ñu àndantee woon ki war jiitu jiitu ki ci war topp topp ci lii moonu jig sëñ Murtada mbooleem doomu soxna yi ñépp teew nañu nit ñi nag lu ne nga mën a luye ba mu des nit chaise bâche barrière ainsi de suite nit ni nga mel moo tax ñëpp ñëw nañu wi melo yal na la ci yàlla sax amiin amiin mënoon nañu ñëw te suñu xol du ñëw waaye suñu lépp ñëw na maa ngi ànd sama rak Serigne Abdoul Aziz Sy Mawlaay ñu wuutu fi Serigne Babacar Sy Mansour nee na mi ngi lay ñaanal njaboot gi nga jiite yàlla na nga leen teeral fa ko sa maam ju tedd ji bëgge woon maam Cheikh Ahmadou Bamba amiin amiin amiin fa suñu maam ju tedd ji bëgge woon muy moom maam Mor Faye ma euh, man ak ñoom sëñ Xaadim maam la ci noonu donte noo bokk génération lu tere ngay wéy jur ci noonu tabarakallahu ñu gàttal kàddu bi nuyoo sëriñ bi lañ doon jot bi sëriñ Babacar Sy Mansour ak mboolem njaboot Seydil Hadji Malick yàlla bu muy suñu muy yàlla allahuma la tajalhu axira liqain wa axira jalsatin wa axira ziyaratin hada wa billahi tawfiqi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xam naa teraanga la moo tax ñu jël kàddu waaye lañu suñu yonent ba sallallahu alayhi wa jàngaloon daf ni su ngeen dee ñaar rawatina ñett fa taniyu waaxida jël leen kenn ngeen jiital suñu mbokk suñu xarit sëriñ Moustapha waxuma la waxal na ahlu tijaan yi à tariqa tijaan yi bi jumlati waaye waxal na lislaam bi waaye bis bi nag suñu ci joxe kàddu mën nañu bañ a waaye mënuñu ñàkk bañ wax ulama u bayaan daf dañu wax ni maa laa yettimu waajibun illaa bihi fa huwa waajibun li war lay tax loola am loolee lu war la suñu yëkkatee nag suñu nuyoo bi bu ñu ko joxee Serigne Cheikh Abdou Latif di mbokk di dëkkaale bu wér di ku baax ku ñu xam mën nañu ko yegg fu njabootu maam si Ahmad Bamba nekk ci àdduna bi kon rawatina ñu fi teew kàddu gi ñuy jël xam na ni jataay bi mag ñi ñoo ko defar ba mu jekk nii kon nañu santaat mag ñi mawlaana alxaaji malik radiallahu taala anhu ba mu demee ca mbokkam ma ak la mu koy yóbbaaleel ni ko xaddiyatun muujibu hattilaabu mahabbatan yaa ayyuhal xubaabu lam ko jox muy lu sedd xolom muy li mu gën a bëgg muy li nga xam ni dafay jël lépp teg jël loola teg ci kawam ndax li mu am lépp ci sayyiduna muhammad loolu moo ko ko may te moo di alquraanul karim moom la ko Mawlaana Alxaaji Maalik jox ni ko lii nag su ma la koy jox bëgg rek nga sopp ma moo tax kon kilifa ak tarixa tijaaniya su demee ba ni Cheikh Ahmad Bamba dama bëggoon nga sopp ma ma jox la li nga gën a sopp kon képp kuy njabootu Cheikh Ahmad Bamba jàpp naa ni dinga nga sopp njabootu Alaaji Maalik loolu moo waral jataay yi bayit yi bari na ñetti bayit la ba ñeent waaye la ko Cheikh Ahmad Bamba tontu itam ñetti bayit la daf ñu ko mën na sopp la mënta ñàkk ndax ñoo bokk naanukaay noo bokk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolee mag ña def muy royaatal ku ne xam na ni Mawlana Abdul Aziz bi ñu fi jógee Serigne Moustapha Saliou ab yaat ya mu def ci moom yooyu yépp misdaaxan li nga xamante ne bii Cheikh bëggoon na ko njabootam mel noonu ak njabootu Alaaji Malik radiyallahu anhu kon tey suñu xarit suñu mbokk jege ñu lool nag ci xol ko xam ni xàmmewul benn tariixa ñépp la jox cër di jàppale ñépp ci am amam ak ci xelam muy suñu xarit sëriñ Murtada Amar ayadahu llahu wa nasarahu wa tawala lii yàlla yàgg yaa ngi liggéeyal sa waajur waaye yaa ngi liggéeyal Seexul Xadiim ndax lii rek la bëggoon ñi ngi nag jagleel nuyoo ki nga xam ne suñu waajur la suñu xarit la suñu sëriñ la muy lu wér muy sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te borom mbég mi yàlla na fi yàgg te ñu ngi koy jagleel nuyoo boo xam ne bu ñu ko joxee rek jox nañ ko jullit yi ñëpp suñu teew fii nag dingaraay moo ñëw ci kër mbokkam ma ànd ak samay njaboot Cheikh Astou Gadiaga muy Serigne Cheikh ma nga ne toog di doomu Alaaji Tijaan Gadiaga samay doom di doom ci kër gi Serigne Muudu Buso ma nga ne toog sëriñ Abdou Bachir ma nga ne le Omar Bachir ma nga ne le toog ñu tànnal ñenn ci ñooñu rek sëriñ Mourtala ñëw ànd ak yow ci guddi gu mag yi nga xam ni wutal mun koo guddi digiraay rafetal nga ci biir rafetal nga ci biti yàlla na la yàlla sàmm sàmm ñu gàttal nag moo tax ñu yem fii waaye tey suñu jógoon di wax ci ki nga xam ne moo tax ñu teew fii ak njabootam maa ngi koy wax sàng ma ni ko wallaahi suñu ñëwoon gisuñu la gis sëriñ xaadim ma leen doy na sëkk ndax saa ne sëriñ xaadim ku bàyyi xoolal xoolal kon ñu ngi lay ñaanal di ñaanal njaboot sëriñ xaadim ma ki magam ak rakkam di nuyu nag mbokk yi fi daje yépp bàyyiwuñu kenn te ñaan yàlla ni ñu fi teewee yàlla ñu fi teewee noonu déwén teewoon nañ fi déwén de jàpp naa ni neex na waaye man ci sama liste day tey la tey la dàq yàlla dàq déwén bi jaay Seydina Muhammad wa sallallahu euh, mbokki jullit yi mbokk yi fi teew ñu ngi tàmbalee suñu kàddu ci sant suñu borom subhanahu wa taala ñu may ñu teew fii daaw ren ñu teewaat ko ci anam bi ñaan yàlla yal na yàgg yàlla képp ku fi teew ren déwén yàlla may la kàttan ak wér ak tal ba nga mën fee teew di tàmbali suñu kàddu itam ci nuyu di ziar kilifa jotaay bi nga xam ni jullit yëpp a nga koy ñaanal taalibe yëpp a nga koy ñaanal te liñ ko ñaanal yàlla na ko dal muy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér yàlla dolli ko kattan ba li mu liggéeyal islaam di ko liggéeyal jullit yi yàlla may ko mu yeggale ko fa mu ko bëggee te ñu ànd ko ak moom di nuyu di képp ku fi teew muy mbokk muy kóllëre muy taalibe di ñaan yàlla niñ koy waxoon léegi màggal gi ñëw na ci jàmm seen nañ ko jàmm yegg si na ci jàmm di ñaan yàlla yàlla na yàlla jàmm jooju yàlla na sax yàlla na sax ci réew mi nga xam ni soxla na ko ci jamono yi xëy naa ci jël soit waaye di ñaan mbokk yépp ñi fi teew nañu bokk ñaanal itam ki nga xam ni tey jii ku tudd màggal gi ku tudd bës bi ku tudd gàddeel di nga ko tudd muy sëriñ Mourtada Ama sëñ Mamoor wax na ko léegi ñu jataay bi bés bi ñu baax a ko sos te lu baax lañu sos muy dox te at mu jot da yokk waxi sëñ Mamoor bi mu sëñ Mourtada ñëwee ba léegi ñëpp gis ni yokkute googu gu am la ku ne mën na cee teg sa bët ci fànn yépp nag ci teewaayu mbokk yi ci teewaayu autorité yi ak ci teewaayu képp koo xam ne ni diine ñor na la waaye dëkk bii ñor na la di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yàgg a gisee ñaan yàlla defal ko wér moom ak njaboot yépp na suñ kàddu wax nañ léegi ni dafa guddi du ci gudd ndax sëñ bi daf ñu daan wax ni bu jamono yi teewatee bu buñ jëlee kàddu nañ ko santal autorité yi bien que baatam moo gën a autorisé suñu bos waaye nañ ko santal autorité yi te bu ñu nee autorité nag ci république lañ nekk ci président de la république lay tàmbalee ba ci ci mujj ci fii muy maire bi muy sous-préfet ci seen taxawaay ak fonk gu ñu fonk màggal gi sama kàddu nag du ci gudd ndax ku gis barab bi ni mu mel ni mu taaroo ak liñ mobilise yépp ci ay nit ak i service ak i moyen xam nañ ni loolu dafa laaj waajtaay dafa laaj taxawaay boo xam ni tey jii lii ñu tuddee comité d'organisation bi nga xam tey jii kenn amul benn reproche wala am nga lenn looy sikk ci ñoom wala ci liggéey bi bu lii amee nañ leen ko gërëme euh, dañuy bañ nag lim du juum ndax bu nee comité d'organisation euh, da ngay daal di bëgg a lim kii wala kaa waaye buñ ci tuddee ñu tudd ñëpp muy sëriñ Gumba Amar di magu sëriñ Xaadim mee toog tudd nañ ñëpp ndax mooy seen mag te comme niñ ko waxee léegi ñoom dafa am lu ñu gëm mooy mag jiitu rakk topp ci loolu nag bu liggéey bi demee nii nañ xam ni am na ñu nekk ca gannaaw xëy na feeñu mais tey jii loolu moo waral mu mel nii ba ñëpp di ko rafetlu sëñ Gumba yàlla na yàgg yàlla yàggal taxawaay bi ci sa kanam rakk yi ak sa kanam doom yi ak sa kanam jarbaat yeeg ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak yow comité boobu di sant sëriñ ga xaadim mi nga xam ne ñëpp sañ euh, rafet nañ taxawaayam moom mu féete fii sëñ euh, sëñ gumba féete Touba sëñ xaadim féete fii waaye ñoom ñëpp nag dañoo am ndaw seen ndaw mooy kan mooy xaadim Murtada donc du ma guddal wax ji ndax lu jëm ci administration bi moom lañu sasoon mu dox ci diggante bi di def le suivi waaye di def lépp loo xam ne nii aajo yi dëkk bi la mu taxaw ci ci ndigalu sëriñ bi kon ñi ñëpp ci ndigalu sëriñ Mountakha la ñu waxee waaye kàddu gi mën naa bañ a gudd ñu jox ko mu complété ndax xam nañ ni démarche administrative yi ñu ci def yëpp moom la xam nañ ni suivi bi ci am yëpp moom la kon ak ñi mu ko àndal buñ nee comme ni ma la wax léegi damay bañ di lim bi juum mais buñ nee xaadim rek ñëpp xam nañ ñu ko àndal du kenn ab équipe la boo xam ne nii li may ñaan sëñ bi mooy na doole ñaanal njaboot gi ci la dëkk na ci la dëkk ci ñaanal njaboot gi ci ñu bennoo ci ñu xam seen bopp ni ko sëñ euh, maam moo di waxe xam sa bopp mooy ñu xam ni lii fi nekk lu baax lii fi nekk dafa am cosaan cosaan li mag ñi ko liggéey te du ñëwoon di nelaw rek dafa am fu ñu tolloon seen diggante ak seen borom su leen may ba tey jii ñun ñëpp ku ne bëgg a feeñ wala di mën a feeñ dafa am ñu ñu jiitu mais mag ñooñu nañ leen ñaanal yàgg nañ di leen ñaanal nag ndax démb rek ñaanal nañ leen euh, bés bi bu ko jàppee ba léegi ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yokk seen leer yàlla wàcce ci ñoom yërmande tey ñaan mbokk jullit yu amul solo mi ngi waaj muy élection ñëpp lañ bokk ñaan réew ñu mucc lañ bokk ñaan jàmm am ci leen ndax jàmm kat moo ñu may ma nopp tuuti damaa jëm ci ku ma ñor c'est le fils de son papa. naar pire dar manko bete bete il a le profil intellectuel qu'il faut juddi bi rafet na te jikko ji yàqu ko comme disait Pierre Corneille au âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années diggante jéemul ak gàddu yàlla sëriñ Abdou Salaam sëñ Bayti Ndongo Joor sëñ Mor Faaruma sëñ Gumba Asta maam yi din soxna ma gumba julit an soo woon an soo woon maa ngi jox kàddu gi ki relevé défi bi tubaab yi dañu ne c'est devant les difficultés que l'on connaît les vrais la grande capacité des hommes la grandeur d'un homme se dans sa capacité de faire face aux difficultés défi nga relevé ndax gàmmu gi organisation bii bu rëy bii bu impeccable bii ku ñu waajulul mënoo ko ay Cheikh na Ahmadou Khadim lañu lu tuddee balay si buri sëñ Mbacke Mar Mbodu soxna si bari maami Cheikh Mouhamadou Mountakha Serigne Khadim you have the floor. sëñ Cheikh thank you for giving me the xam naa ne daal li ñëw sëriñ bi ñu waxoon ne wax dafa mel ni njaboot. nit ki xelam dafay nekk ci dara wax ko fekk dafay tontu jamono waaye dëgg la c'est dans les difficultés qu'on reconnaît la grandeur d'un homme loolu lu waaye Cheikh Fall waxoon na ne nit daal boo koy sant ba ne ko ba góor nee na jaratul nga tey teg dara ndax lépp waaye le contraire aussi est vrai. Auzu billahi mina shaytani bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi alqiyamati mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi yëkkati suñu kàddu waaye ñu ci ndigalul xarit bi Cheikh Mouhamadou Mokhtar Lépp ñu yëkkati suñu kàddu ci ndigalul Serigne ndigalul sëñ Xarim ci ndigalul sëñ Ahmed coordonnateur ci ndigalul sëñ Ahmadou Amar sëñ Mor Amar mu suñu wajur sëñ Ahmadou Amar ak ci ndigalul mën naa koo wax sax sëñ Abdourahmane ak sëñ Ahmadou ndax ñun dañoo waxoon rek ni dem leen ngeen góorgóorlu di wax ak administration bi ba jox ko yëpp jàpp waaye sëriñ bi ñu guddal ñu wax ne liggéey bi nga ñu dénkoon ñu ci doon ndox doon ko seetal administration bi. lépp rafet na duñ mos am doléance yaa ñu waxoon nañu nit moom mën naa jéem waaye lu sotti moom yàlla rek a waaye xam nañ ne daal buñ ko doon mesurer ci ay indicateur dinañ mën a wax ne quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre vingt dix man na taloora manqué wu damay bañ a wax pour cent jamono di ma jam parce àdduna mu bëri loolu la ca des nag mooy su ma taxawee fii di wax kooku ak cant la te sëriñ bi dina ci ñëwaat moo di sant le président de la république son excellence monsieur Macky Sall ci taxawaayam ci màggal sant le premier ministre Amadou Ba le ministre de l'intérieur Maître Sidiki Kaba le gouverneur de la région de Thiès le préfet du département de Tivaouane monsieur notre frère monsieur Guèye le sous-préfet de Niakhène et son adjoint waaye monsieur le ministre ma wax la ne la répétition est pédagogique ñun dañ doon wax waxtu wu nekk ne li tax kenn du ñu dégg palais de la république suñu gouverneur yi ak suñu préfet baax. ñu ngi leen di ñaanal yàlla yegg seen maqaama ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu am ci bis bi. loolu moo nekkoon liggéey bi ci màggal bi mat na daal mat na jërul guddal ku ñu jox kàddu nag say naw la jox la ko war ngaa wax seen diggante ki taxoon ñuy liggéey kooku moo di Cheikh Mouhamadul Moutada kooku ñun duñ ci sori ndax wax naa ci ba tey ne moo ñu waxoon ne alxuraan daf ñu wax ne bu leen taskiyee seen bopp taskiyee sa bopp nag mooy ngay wax te loolu jomb nañ ko waaye ci suñu sëriñ la ñuy wax suñu sëriñ nag bi ñuy wax ci moom duñu wax ñun li ñu yëg waaye li indi témoignage yi ñi nga xam ne ñoom la bokkal jamono loolu lañu wax sëriñ bi bu ma jëlee sa mbokk mu baax mii nekk ci awoor te nekkoon fi te génn àdduna yàlla yàlla yokk leeram mu ni sëriñ Abdoul Aziz Al Amin daf ne Mourtada bëgg naa ko ndax dafa yaw loolu lay sëkk su ma jëlee sëriñ Modou Makhtar Mbacké yàlla yàlla yokk leeram dafa ne Murtada borom xam-xam la loolu doy na sëkk su ma jëlee Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général des Mourides te wajuram Serigne Bassirou doon ñëw fii ci barab bi ba bi ci mujj dafa fekk sa wajur bu baax wa mu ganale ko ba mu am sa wajur bu baax wa bu doon bi bi ñetti yi passé Serigne Bassirou ñëw ba bi ñu toogee diir bu yàgg Serigne Bassirou ne ko xanaa da ngaa indiwul ay yére yu bari mu ne ko man doomi Serigne Touba mu wax dugal may laa fii jël Serigne Bassirou jël moom yoroon jox ko ne ko kon faral sol bii mu sumi bopp ba comme taay ba dafa gàttoon Serigne Bassirou xaw ko su tuuti mbubu di buubu ci suuf ñu ne ko da nga koy dagg mu ne déedéet yéen xamoo leen dara mbubum doomi Serigne Touba kenn du ko dagg Cheikh Mouhamadou Mountakha moomu bi ngay wax ak moom ci lu mel nii def na la sa mbir ñaan nañ ci bu yàgg mag ñaa ko fàggu kooku témoignage témoignage bi may daanale mooy Serigne Mahfou Aïda doomu Serigne Mahfou la Serigne Chérif Ba Aïda doomu Chérif Mahfou la dafa ne Mourtada ba nga xamoon 1985 ak ba nga xam lan 2004 kooku benn monsieur le ministre ma lay wax ne ñëw nga ci pàkku islam di dëkku leer di dëkku ñaan mu nekk sa tànk fii ñi ngi lay ñaanal boo fi jógee yàlla na yàlla yokk sa maqaama diggante sëriñ bi ak président de la kooku sëriñ bi moo koy waxal boppam ñun daal benn bët lañ am xam lañ am benn tànk lañ am moom la ñuy xool bu sëriñ bi teggee ñu teg bu deltoo ginnaaw ñu deltu ginnaaw bu taxawee lu ñu langal moom dañuy arrière ndax fi moom langal amu fi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa